du Ngouda kan ñu ngi entraîné ci club euh, Fosse du Kayor dañu amoon benn journée boo xam ni dañ ko jagleeloon sport euh, te Taekwondo journée boobu euh, li taxoon ñu ñu def ko maanaam dañ nekk ci salle di entraîné am fa ay élèves yu ñu formé ay ceinture noire ay premier dan ay deuxième dan ñu formé ay maîtres dem ci régions yi am fa ay salle ngaay ay xombal ay Touba Toul léegi nag salle bi nekk na salle bu mag boo xamante ne nii ah chaque année dañuy organiser fête fête boobu jagleel ko parents yeeg ceinture noire yeeg ligg bu cees ak fédération loolu moo taxoon ñu organiser ko fête invité ci ligg bu cees ñëwoon na ci programme bi indi ci participation invité nañu aussi autorités yi ñëwoon nañ ci fête bi lépp nag dañu bëgg a wane suñu bopp rek wanewaat sport bi. Euh, naka lay dundee fii au niveau de Thiès ci zone bu ñuy wax Medina Fall ñu bokk ko ànd nañ ko tamit ak suñu maître maître Pape moom moo ñu formé salle bi mi ngi formé wu fii ci Medina Fall 2003 am na ay ceinture noire yu ci formé wu jógee dem ci régions yi ubbi foofu tamit ay salle euh, loolu ñoo ñëpp it invité waat nañ leen ci fête bi waaye nag ku wax sport wax ndimbal ndax ay ay ay xale lañu yor ay élèves lañu yor ay mag lañu yor. te ku wax loolu soxla ay moyen salle yooyu ñu yore dañ fay former ay combattants di dem ci compétition yi di compétir di indi ay médailles ay trophées ay diplômes ah, am fa ay ñoo xamante ni ay arbitres la ñuy suivre am fa ñoo xamante ni ci wàllu technique bi la ñuy suivre maanaam bépp domaine boo xamante ni taekwondo mi ngi ci yëngu rek salle bi ñuy wax force de corps moo ngi ciy yëngu léegi nag ku wax entraînement sport wax ku la jàppale. ñu lancé appel ñëpp soxla nañ ci ndimbalu autorité yi surtout zone bi ñu bokk muy zone Madina Fall soxla nañu baax a baax a baax a baax seen ndimbal ndax mooy ndaw yi ñu am rek ci la ñuy sukkandiku di ci former ay combattants di ci former ay maîtres waaye nag képp ku man ku nekk dañ la jàppale soxla nañu kuñ jàppale ci boo waxee sport bi ñu yëngu ñun mu nekk te taekwondo li gën a intéressé euh, force du Kayor moom mooy lieu bu mu nekk ndax booy xool salle boo xamante nii amul lieu bu moomal boppam dañuy àll ay place comme ça fii ñu nekk stade bi ñu nekk nii ñu tudde ko ma Diouf foofu lañ nekk di gërëm bu baax maire bi ñu fi nekkal euh, maire zone nord moom itam wax dëgg si yàlla mi ngi ñuy jàppale waaye bëgg nañ mu yokk ak yeneen autorités yi ñi nga xam te ne ñoom ñoo nekk Medina Fall bëgg nañ ñu jàppale ñu bu baax a baax a baax ci moyens yi maanaam lieu bu ñu nekk man fa entraîner man fa tàggatu parce que taekwondo dafa nekk discipline boo xamante ne nii non seulement que waxuma la sànni tànk ak sànni loxo mais maanaam yar bi muy def ci xale dafa am solo ndax euh, yaakaar naa ñu jàngal la ngay aare sa bopp ba lépp loo xamante ni nekkoon na ci yow soo gaawee mer dootoo mer soo nekkee koo xamante nii da nga xaw a am ay kii ci sa wàllu déplacement lu ci bari ñun bu ñëwee dañ koy tàggat bu baax a baax a baax di former ay champion ñuy dem di compétir kon kooku soxla nañu ku ñu jàppale ci lieu bu ñu nekk bu ñu moomal suñu bopp benn bi mooy matériel yoo xam ne ni bu ñu soxlaa bëgg waajool suñu bopp dem ci wàllu compétition yooyu ñu am ka maanaam ay plastron la ñu soxla ay raquette ay cible ak air de combat maanaam ay tatap yu yoo xam te ne tey bu ñu ñëwoon tey dinañ fa mën nekk suñu entraînement ndax soo xoolee maanaam fi ñuy entraîner li ñu bëgg lépp foofu noonu duñ ko fa mën a def ndax fi ñu entraîné dafa xaw a maanaam nekkul lu conforme ak norme yi nga xamante ni moom la sportif di soxla des fois da ngay di gaañu soxla nañu tamit maanaam euh, médical maanaam ñu jàpp leen ci bu baax a baax a baax a baax a baax ba bu ëllëgee su ñu amee kenn koo xamante ni maanaam gaañu nañu mañ la faj mais des fois da ngay entraîné soo gaañoo ah ñun ñooy def suñu kees dem jàppale la di waxal tamit ligue bu Thiès tamit di ko lancer appel ndax yaakaar naa salle bu toll nii Fosse du Kayor ku ko am ci zone bi nga nekk soxla na ndimbalu ligg moom tamit bëgg na jàppale waale ligue bi tamit te ligue pour mu dox saal yi ñoo koy dox ñuy lancer appel taekwondo yi Thiès yëpp ñoom itam ñu mobiliser wu ànd ak waa ligg jàpp ci ligue bi aussi xam ni dañ leen a fal pour ñoom itam ñu jàppale taekwondo Thiès jàppale suñuy rek jàppale suñuy papa jàppale suñu doom yi nga xam te ne ñoom ñoo bëgg ak suñuy jarbaat yi nga xam te ñoom ñoo bëgg def sport kon daal maanaam su may wax damay lancer appel képp koo xamante ni Thiès waa nga képp koo xamante ni Sénégal nga dem naa ba ci euh, ministère ah ñëpp ma lancer leen appel pour ñu ñëw jàppale taekwondo Thiès en particulier Foss du Kayor Medina faal nekk ci complexe ma Diouf di santaat bu baax a baax a baax nga xamte te ni ñun mooy suñu maître lu ñu mën a am ci àddina ci taekwondo moom moo ñu ko def muy maître Pape di sant tamit ñi nga xam te ni ñoom laa bokkal ci salle bi ndax nit lu mën a am ak lu mën a mel rek rakkam mu fi fekk ñoom ñoo ko mën a jàppale ndax ñoom su ma leen nee su leen ni woon nañ jaar fi ñu jaar fee bi mën na deme neen mais ku xool suñu feet bii ñu organiser nii nekk le premier euh, janvier tey vraiment nekk na fête bu jàll boo xamante nii képp ku dund sport soo ñëwee di nga fi gis sport waaye daal ndimbal daal soxla nañ ko bu baax a baax a baax fu mën a jógee xeebuñu kenn loolu laa noonu su ma. asalaamaaleykum euh, maa ngi tudd maître Yoro troisième dan taekwondo force du Kayor Médina Fall maa ngi euh, rafetlu fête bi fête bi ñu doon def vraiment maa ngi euh, sant ñëpp di ci kontaan ndax participation yi ñëpp participer nañu euh, di rafetlu participation club yi ni ñu participer ñoom ñëpp ñëw nañu invité yeeg vraiment club yi Thiès yëpp participé nañu ñëw nañu euh, autorités yi aussi euh, ñëw nañu gis nañ leen vraiment jàpp nañ ci bu baax a baax suñu xol sedd na bu baax euh, élèves yi tamit ñu ngi leen di sant di leen gërëm ndax tey tamit def nañu li ñu waroon a def ndax préparé nañ leen pour ñu préparer seen fête def seen def programme bi lépp jàllale nañu ko jàll. toujours di remercier ñëpp ñi nga xam ne présenté nañ ñëpp surtout nag euh, ligue bi aussi ñoom ñëpp présenté woon nañu maître des salles yi yi ñoom ñëpp présenté woon nañu euh, euh, rafetlu nañu ko kenn ku ci nekk jël na sa parole def sa participation wax li nga xam ne mooy sa xalaat. ci aar bi ñuy def ak nu ko nu mu war a doxe ak nu mu tëdde yooyu yëpp kenn ku ci nekk wax na lu nga xam ne moom moo si xalaat aussi tamit euh, wax nañu aussi club bi wax nañu aussi suñuy doléance parce que tamit euh, comme ñun toujours dañuy soxla ku ñu jàppale ndax amuñu ay moyens euh, te it ñu ngi liggéey liggéey bu nga xam ne vraiment su fekkante ni woon amoon nañu ay moyen dinañu passer fii parce que club yu nga xam ne ak seen petit moyen yu ñuy yore te terewul ñoo ngi préparé ay mètres ay dizaine dizaine de de de mètres de ceintures noires de supérieurs yoo nga xam ne ñu ngi leen di préparé ci club bi ay champion yoo nga xam ne lépp ci club bi la ñuy génne ak suñuy petit moyen kooku su fekkante ne woon dañoo amoon ay moyen vraiment euh, defe naa ni dinañu gën a doxal waaw ah, mais nag manque de moyens yooyu ñoo ngi koy jooytu autorités yëpp pour ñu jàpp si ah, ndax ñu gën a mën a liggéey suñu liggéey ah, ndax lii ñuy def aussi tamit a euh, ci euh, luy defar dëkk bi ci la bokk waaw ndax euh, tàgg du caagante ni entraîné xale yi rek ñu dem def def ko ci seen bopp rek mu dem mais nag yar bi aussi éducation bi éducation bi aussi ñuy def ci xale yi nga xam ne ñuy jàng école ak ñi jàngul école yëpp day am yeneen yu nga xam ne dañu koy dindi ci ñoom defaraat ko ci ñoom ci problème éducation ba nga xam ne pagaay gi ñuy def ci biti alors di dugg ci lu ñu warul dugg di def lu ñu warul def yooyu yëpp dañ koy dindi ci xale yi ko aussi kon lu importance la waaw lu am importance la donc kon